naan mbékum kawlax ndangaan fa doon waaja suux niki démb ndax ndox mu bari xasamaan si yàlla ji fa doon satatati taw bu bari te yàgg ba tax quartier yu bari kawlax ña nga ca mbënd mu métti mbedd ya kër ya néeg ya fa ñoo fees dell ak ndox école ya ak post de sant ya hay jàkka ba tax askanu kawlax fa ñoo yuuxu wàllu ndax inondation mbënn mu métti ci la ñu nekk jamono ji ba tax yéene kaayu tey ñu bëri fa ñoo xëy di ñu nettali taw bu njëkk ba am kawlax rek askan jéggi dayoo bés bi yéen kaay moo ñu ko xamal turbine yéen e kaay na ko quartier ya gën sonn ndox ma bari fa mooy ngaan coofak Medina Mbabba ñi yéet tét no ndox ma fa jéggi dayo askan na xamuñ fuñ toggee fuñ fanaan fañ koo jëla la ca mbedd ma ak tëraane ji ca loolu lañ nekk bés bi yéen e kaay na ko du quartier yooyu rek de Kaolack presque quartier yépp ña nga ca mbënd ma fa fees dell laa wax moo tax jëwriñ ji ñu dénk wàllu assainissement Cheikh Tidiane Dièye bi mu yëgee xibaar bi dagg ay itteem ak programme am dem Kaolack mastawu ji askan wa nekk ca seen wet ngir tamit andi saafara daar daar ca mbënd mañ nekk vox populi mel ni ku naan ko ginnaaw bu askanu Kaolack rafetloo jëf ju rafet jooju nga xam ne ministre Cheikh Tidiane Dièye def na ko te mooy génn de massaw askan wa terewul ministre bi fa leen a wax dëgg bokk na ca nee leen man musuma leen a wax ne du ngeen nekk ci mbënd ndax ñaari weer ñetti weer munuñ cee régler ay mbënd pexem daar daar nag danañ ko jël ngir saafara génne leen ci ndox mi moo xam muta pompe la wàq yoonu ndox meeg yeneen yi ni mel bés bi yéen a kaay waa ngi ca mbënd ma ndox mu bëree fa wàcc donte sax liggéeyu assainissement ba a kaay na ko yowit yéetteet quartier yu bari mbedd yu bari fa fees dell ndox ba tax mbënd moomu nag jomaay ak sonko fa ñoo ak moom de waaye diiwaanu tëngéej kër masaar tiwaawan pël malika fa la ma ëppee vox populi na ko ba tey mbënd ma ca ndakaaru tax na BRT ba fi mu toll ni fa taxaw dakar dem dikki dawatuñ fa ñoo taxaw ci gàttal daal mbënd mi am sénégal fi mu gën a méttee mooy diiwaanu saalum ca kawlax ndangaan ndakaaru njaay ak tuuba 24 heures a kaay na bu leen fàtte rek mbënd mi tàmbali kon buñ demee ba ay wax set nga xam ne xiin taw xiinu taw fan la askan wi jëm fa nar a gën a métti leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne ñaareelu bés bi ñu jagleel setal suñu réew sénégalais yi fa ñoo génn ak mbooloo wuy ji wooteeb njiit réew mi Basiru Jomaay Fay Le Soleil yéen a kaay moo ñu ko xamal diiwaan yëpp ñëpp a génn seet setal seen dëkk ya diiwaanu Ndar moom fa la njiitu jëwriñ yi demoon Ousmane Sonko waaye Mansour Faye ci l'Observateur ma ko tat yëngalu ma sax laa wax ci gàttal nee na téeméeri fan réew mi jomaay ak sonko musiba naaru la ci réew mi dara lañ fi defut soxna mi mel ni ko daan ko li nga def nag ci xaalisu corona bi mi ngi ne weng kaay nga leeral ko yow Mansour Faye moom la wax xaalisu corona bi fañ koo sàcc di te ñu la cay tudd fa nga war a leeral di yow Mansour Faye na ko voilà léegi yow mi mi porte plainte faa yóbbu ci yoon ndax tuuma yi nga ma tuumal ci xaalisu corona bi fa ngaa yàq sama der dara du am wàlla assainissement waaye fa mel ne daal nam waxee moom xibaar yañ ko jox daal fa mel ne baaxut daal yor yor yéen a kaay mel ni ku naan ko ah yow tamit njiiti jëw ni Ousmane Sonko li mu wax kay fa leer te am na ci sañ-sañ fa wax ne juróom benn fukki milliards yi nga xam ne état bi fu ko génnee dépensé nañ ko dugal ko ci mbiru assainissement fukki diiwaan ci Sénégal xaalis boobu faa bëgg ñu wax ñu fan lañ ko dugal na yëf yi leer ndax diiwaan yooyu yëpp tey mbënd maa nga fa ba doxut te ñu ne dugal nañ fa 60 milliards faa bëgg ñu gëstu ko critique yéen a kaay ne xée xaalisu assainissement bu de ko sàcc daña ko sàcc naa leen ndax Sonko fa ko bët ba yëpp leer source a na ko yemut fa de Ousmane Sonko fa wax tamit ne accord de pêche yi maanaam tubaab yi nga xam ne fañ ñëw suñ géej di napp suñ jën yi xuuf faa yóbbu yëpp ak accord yi am ci wàllu pétrole beeg gaz bi fañ koo signé signé boo xam ne baaxut ci sénégalais 90 tubaab yee ko moom ba tax nee na loolu yëpp nag fañ koy waxtaaneewaat signé waat ko ndax ña ko signé tubaab yi lañ xool xooluñ intérêt sénégalais te mooy Macky ak ñi mu ba tax bu la askan wi falee dootuñ la gisati fa ngay toog ci bureau yi déedéet ñun fa dem ci askan wi jege leen déglu seen jafe-jafe problème bu ñu dégg dem fa ngir ànd ca saafara ndax askan wi moo ñu fal bu fekkee loolu mooy populisme nag kon ñun ay populiste lañ professeur Ahmed Ndiaye constitutionnaliste la xam-xam màcc ci wàllu yoon ci wàllu fajiri fa wax ne man daal li ma gis mooy premier ministre Ousmane Sonko fa war a faat dindi président Ousmane Sonko a summi

dox tànki jàmm fexee andiwaat Mali Burkina ak Niger bi nga xam ne fa ñoo génn CEDEAO ngir ñu del siwaat fa ndax président Diomaye fa wax ne waruñoo seetaan Mali ak ak Burkina di génn CEDEAO loolu baaxut ci Afrique fa ñoo war a ànd nekk benn buñ nangu tubaab bi féewale ñu ñu ne ko waa léegi demal dox tànk jàmm ya nañ di kaat le quotidien yéen a kaay na ko hée c'est nga noppalu président Diomaye Mali Niger ak Burkina ñoom def nañ a kaay na leen voilà tubaab a sonal Afrique mooy France fañ doon amal nag ñoom wote député yi waaye Macron ak ñam àndal fañ leen a mbuqi de ba ñu bëgg a dee ba tax Mélenchon nee na Macron fa war nangu mbuqi defet bu ñu ko mbuqi te xam ne France fay soppeeku réew mi yéen a moom fa dikkaat ak ñun ci fukkal ak juróom-ñeenteelu édition corridor MEDES fa waneeti boppam keneen ku wane boppam ci diine ji te yàgg na ko wane mooy imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé imaam bu Medina Baye ngan gu maggam daan imaam mu yëkkati fa kàddu am solo loolu baax na li baaxut kay mooy tali bi ñetti doomu aadama fañ cee faatuwaat ci accident yoo xam ne fa xam diggante diiwaanu ndar ak ndakaaru turbine yéen a kaay moo ñu ko xamal ak nawet bi yàlla ji taw chauffeur si nañ gën a def ndànkati lu ko mooy du baax de ndax dee ak fa métti mooy deegu xaaraar